Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo jullit di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci nuyoo bi Serigne Touba Serigne Mouhamad al Muntaha di ko ñaanal sunu borom tawféexal ko kattanal ko ba naal yii mu fas yéene liggéeyal Serigne Touba sunu borom kattanal ko ba mu mottali ko waaye mu ànd ko am mbokki taalibe yépp noonu la nuyoo ak ziar mboolem kilifa diine yi mboolem kilifa aada yi mboolem mbokki dëkk bi waaye mboolem ñi toog ci biir bas bi ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax waaye di ziarawaat bu baax sunu kilifa yu tedd sunu gan ñu tedd yi. ñi nga xam ne at mu nekk ñu ànd ak ñun ci sunu événement bu am solo bi mu mel ni ren jii mu yemoo ak la 4 mai di bés boo xam ne bu ñu gisee ci poster yi daañu gis ne mu ngi toll ci seizième édition mu mel ne kon bis la boo xam ne bis la bu ñu yàgg taxawal waaye bis la boo xam ne bisu sant la kon ñoo ngi sant ak cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem jëm ci rek mbokk yi ñi nga xam ne kenn ku nekk bàyyi nga sa yittee mu jaral la nga jóge fu sori ñëw teew tey ci bis bi ngir teel a bis bi cant boobu mu ngi jógee ci kuréelu daayira xale yi Serigne waaye jaar ci jëwriñ Serigne Bassirou Dione ñoo koy yeggale ci mboolem mbokk yi yëpp kon bu ko defee dañuy daal dugg si ci liggéey bi kaddu bu jëkk gi dañu koy jox al imam Serigne Ibrahima Dione moom mi yor kàddu dëkk bi bu ko defee mën naa tàmbali bu fekkee mu ngi fi. jëkki nuyoo bi ci suñu kilifa yi fi teew teg ku seen loxo ñu jot la ko Seex Muhammadul Muntaxa ñu ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd kon ñu ngi leen di xamal ni kàddu boroom dëkk bi di Bokar Jonn di chef de village. dañ koo dëxëñ ci biir kàddu ilimaan yi su ko defee ñu xamal leen ni mbooleem ilimaan yi fi teew ak ñi teewul ñépp ñoom ñëpp ñu ngi bokk di rafetlu bis bi di sant yàlla ci teewe bi ñu ko teewee waaye di leen nuyu di leen siyaare yéen ñëpp su ko defee mu mel ni sëñ Moxtaar Jonn bi ma sama xel fat moom moo fi nekkal taalibe yi ci wàllu xalifa général de Mouride mi ngi fi kon moom itam ñu ngi koy siyaar di ko jox wàcc waayam Euh, di ñaan mbooloo mi nga xam ne moom la ko suñu borom booleel ñun ñëpp yàlla nañ tënku ci lislaam te tënku ci ndigal te bañ koo wàcc benn benn yoon kon su ko defee jotaay bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ndax lii wàccaay du tey rek lañ ko def wi dafa yàgg te kenn ku ne jàpp na ci ba mu faw xal suñ njort kon yàlla yàlla nangu lépp waaye gone yi nga xam ne ñoo ko taxawalit gis ngeen leen nii defe naa bu ñu leen xaajoon lu mat ñeent xaaj benn bi rek àgguñu sax ci togg jëf waxumala ak ñu ñuy denc kër kon ñu xam ne Pastef dëgg dëgg moo ci moo ci tàbbi te loolu dañ cee war a sant yàlla ndax gone bu fekkee mi ngi jublu ci lu baax te nii woote wuñ ko ci bis bi rek waaye semaine bu nekk danañ ci dajalu mat ñetti yoon def daayira sikar jàng fàttalent te loolu lépp mu ngi tegoo ci loxol sëñ Bas moom it ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ñaan mbooloo mi nga xam ne moo nekk ci ginnaawam it yàlla nañ ko déggal ba fi mu leen teg ñu nangu faa tegu te doxal ko. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñu ngi am kàddu yoo xam ni muy kàddu Serigne Massar Dione yu mu jëmee ci bés bi ak ci réew mi waaye kàddu gi nag imaam Ibrahima jon lim na mbooloom ñu fi teew ñëpp lim kilifa yi fi teew yëpp ba ci sëñ Babacar Dia mi fi yendu kon sëñ Motaar lan la war a def muy ak cant ndax dañu na représentant Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér ak Cheikh Jëmb Fall ak Cheikh borom Touba yëpp waaye nag bu ko waa kër sëñ Touba teewee. ndax njenn teew na faaleen teew na waa kër si mut ja aminte teew nañu mbàkki teew na kon tey boroom tool bi teew na kon tey lan la sëñ Matar di def muy déglu ndigal kilifa yi fi teew ñu digal ñu dénkanu bu ñu fi jógee mu des fi di fàttale loolu rek la sëñ Matar war a def tey cant goo xam ne gii daa am lu euh, euh, sëñ Malick waxoon léegi sàkku woon ko mu ñu ñaanal jëmm ji bokkoon ci liggéey bii doon daane dooleem bëgg a tekki ba tekki jëriñ ay njabootam mu wàcc liggéey ci ci tukki boobu sëñ Malick ne woon na ñu ñaanal ko kon loolu du joteeg euh, lii muy bëgg a wax kon sëñ bi mën ngeen a joxe ñaan ñu ñaanal jëmm jooju ñaanal ko jëmm ji boole ci bu ñu ko defee addi sëñ Tuubaa rek yéene wàlla de Cheikh Samba Jonn mi nga xam ne nitam daa bokkoon ci jóoruñu sëñ Tuubaa ndax fu ñu mën a fu ñu mu sa wootee lu baax rek mu nga fa teewaayu Murtaa Murtaalu Jàll ne ne kon ñu boole ko ci ñaan waaye sëriñ bi daal kon yéen kilifa bi teew sëñ Motaar mu ngi leen di jotal ngërëm gu mu gërëm waa dëkk bi ak réew mi yëpp jëkkee ku ci mag ñi ndax mag ñi nee na li tax mu jëkkee ci mag ñi dañoo àndoon ak waa waajuram ba ñu noppee gis waa waajuram ñu ne ko yow la na fi teg nga nekkal nu fi sëñ Tuubaa di ay baay di ay mag ñu tudd ci mag ña Baay Aliou Dione di tudd Jóoriñ Mamadou Mamadou Dione ak baay mbay mi nga xam ne muy baay ci dëkk bi tey ak jóoruñu ci biir dëkk bi ndax dëkk bi dafa am ñaari jóoruñu Touba Pambal ndax Aliou joon mag ñi dañu ko fi sampoon mooy jóoruñu Touba Pambal waaye liggéey sëñ Touba ba di garab ya mu wutal ci jóoruñ di bàyyi mbay teen mu sambaat ko fa muy jóoruñ cere sëñ Saliou ji bàyyi mbay moo nekk jóoruñ ji kon dëkk bi am na ñaari jóoruñ ndax Aliou Dione moo ko ne féetale ak liggéey boobu cere jooju it bàyyi mbay def na ci loo xam ne lii xamuloon ne ren gone yi saalu Saliou tutànke yi sëñ Saliou la ko tuddee waaye juróom benn fukki saako la moom dëkk bii Baye mbay faaxee na ba am na fi juróom-benn voyage yoo xam ne saa bu ñëwee juróom-benn saako lay jël yo jël ñu léegi ko mu yóbbuwaat ko kon benn dëkk bu gàddoo juróom-benn yoon boo xam ne yoon bu ne juróom-benn saako lay yow Baye Mbaye noonu la liggéey liggéey boobu ba léegi ba àgg tool mango yi mango ji bu tàmbalee dootul demate toolam ba keroog tool sin bi àgg kon sin motaan nee na mu ngi leen di seede jëf jooju tout tànk itam liggéey Sëñ Saaliw bii di cere jii ñeneen Ndakaaru saako yooyu ñoo ko yore boo ci nag di yóbbu fop seen addiya di yónni seen waajur yi ne ci kër gi ñu di ko ñu di ko liggéey liggéey bu kon tu tànk yi Sëñ Motaar nee na ñoo ne ci kër yi ñoo ne Ndakaaru ñoo ne ci Touba kon yéen kilifa yi mu ngi leen di dénk tu tànk yi ngeen dolli leen a ñaanal ndax sunu borom nee na day nattu nit ci alalam mbaa njabootam mbaa wér-gu-yaram sunu borom nattoonoo ren nawet bi ndar ba Ndakaaru amul nawet waaye mboolem juróom-ñeenti dëkk yi doon def cant amul benn dëkk boo xam ne bii ñàkk naa def tànk cant ndax nawet kon le sëñ Abdou Lahad noon xol bu nangu moo gën tool yi nangu kon xol yi nangu na ngeen ñaanal ñu nag na tool yi nanguwaat ndax sunu borom dana noonu seet leen rek ba xam ndax li nu jàppoon doon sant sëñ Touba ak bi ñu doon liggéey sëñ Touba ndax nii nawet bi dina demee dina tax nu bàyyi ko waaye ren nawet bi mëneesu koo xam ci tool gi mëneesu koo xam ci lekk yi mëneesu koo xam ci xew yi fi nekkoon kon sëñ Touba dana doon woon boppam rek. kon la si nebloot naan ba muy ñaan amul ku ne ci wetam di wax amin kon ñaan gu nangu googu moo waral lii rek mbàkki bàll kon ngeen doole noo ñaanal jën aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi di seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di waxati jërëjëfa sëriñ Touba waaye nag di sant Cheikh Saliou Mbacké bu baax a baax ndax li may wax bés bu ne rekk lu xew mooma lu am mooma lu nekk mooma li may def daal mooy sama xol seddati na ndax sëriñ Touba wonati nañu boppam Cheikh Saliou wanati nañu boppam loolu su ma ko waxee jarul ma koy toj ndax xam naa jëwrin bas mii toog xam na sëriñ tey bu jonn mee toog xam na sëriñ Touba wanati nañu boppam sëriñ Saliou wanati nañu boppam kon awma tey daal def lu dul ngërëm gërëm ko ak sant ko bu baax waaye nag ngeen may ma rek ma sant sëñ Bas mii toog ñoo ngi lay sant bu baax di ko gërëm di sant jëwrin sëñ Basiiru Jonn wàccoo nga ak dëkk bi wàccoo nga ak gune yi wàccoo nga ak mag ñi yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na la yàlla def mag ndax li ñuy naan yal na la yàlla def magub lislaam yàlla def na la ko ba pare yal na la yàlla sàmm aar la moo ci des tey nag bés bi sëriñ saaliw moo ko organiseel boppam li may wax jëwrin bas ñu bari war mën nañ koo seede ndax tey lii fi xew yépp borom bés bee ko defal boppam tey kenn defu fi dara yàlla xam na ni ñetti fan balaa bés bi fekk euh, ñu bari jaaxle woon nañ waaye yaakaar naa ne borom bés bi defar na bésam organiser na bëfam kon tey kenn du ci ndamu tey sëñ Saali moo organiser bésam su ma ko waxee ñu bari xam nañ li ma wax li may def daal mooy gërëm sang yi fi toog sëñ Modou Dia meewaan bi ngeen ko ne Pambal nga bokk ba tey jël na Pambal dëxëñ ko ci biir xolam wan na wanate nañu ko tey kon bég nañ ci sa teewaay sëriñ bi ja ñoo ngi lay jox sa weccu wàccuwaay di ko jox mbooleem euh, doomu soxna yi fi toog yëpp ak mboolem kilifa diini fa yi toog yëpp di beral nag suma xarit suma wëllëre di sama mag bopp di suma xaritu bopp sëriñ naar jenn kooku dama koy ndamoo dama koy tiitaroo dama koy bége fu ma toll ndax dafa dafa ma bëgg di ko fésal di ko wane kon man fu ma toog tamit mbëggeelam ci man dama koy fésal di ko wane sëñ naar yàlla na yàlla taxaw tey nag dañu am ay gan dama am ay gan yu spécial ndax kii ñu tuddee bés bi Serigne Saliou ma amaat gan bu tudd Serigne Saliou Sey moo toog nele nekk directeur généralu entreprise bu ñu tuddee euh, entreprise de transport entreprise sénégalaise de transport sur chantier mu ànd ak soxnaam madame say ngont ñëw fii te yàlla xam na ni am nañ dëj bu doy waar mooy oto bi ngeen dégg ci yoonu Touba bi njabootam la ñoo fa gaañu waaye mënuma Serigne Cheikh xaw ma nu ma lay def mënuma bañ ñëw Pambal faw ma ñëw fa bu dee ñaari minute sax teew ci bésub sëñ Saaliw ndax mooy sama turandoo kon sab sëñ Serigne Saaliw Sey ñoo ngi lay ñaanal maa ngi sant tamit képp koo xam ne yaa ngi fi nga ñaanal ko yàlla lépp li nga xam ne mébét na ko ci euh, ay liggéeyam yàlla sottal ko yàlla taxawu ko di gërëm aussi chef de village yi fi nekk ñëpp ànd ak seen président Samba fay di ko di leen gërëm ndax gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi gis nañ seen taxawaay ci xew-xew yu fi am yëpp xew-xew bu am ngeen taxaw fa teew fa di gërëm aussi ki nga xam ne ñëw na fi sànq di monsieur tey nekk meeru Daaru Musi Daaru Musi ba ca yoon ak Touba yaakaar naa fii la yendu waaye xam nga ab maire ak programme weekend bi day xaw a doy waar am na sama xarit yu bari collègue maire ñu ngi ci yoon bi di ñëw waaye programme weekend bi moo xaw a bari ndax dañuy waajal bésub koor kon ñun li ñu am nañ ko sante yàlla waajalee ko koor gi yaakaar naa ku jëm ci koor woote ngontub sëñ Saaliw comme di ko waajalee koor yaakaar naa sa jaan wàcc na kon tey daal bisu mbégte la su préfet tamit jox nañ yóbbante waaye am naa yaakaar ne ci kanam dina ñëw ndax tey gàmmu yi ñoo xaw a sakkan tey ma nga Chérif loo ca dëkk bu ñu tuddee ca kër Thion Sarr su fa jógee incha allahu rabbi dina fi ñëw te ñu ne nañ ko toog xaar dinañ ko teeru nee na ñu jox leen yóbbanteem nuyoo ak cant ak ngërëmam bu mu am ci population Pambal nee na kat yaakaar naa ne fu nekk def na fa service waaye ba mu ñëwee Pambal ba tey lii mu gis Pambal ci booloo ci gëm li ñu gëm ci gi diina bu ne nag ak euh, bëggante gi fi nekk ak soppante gi fi nekk yaakaar na ne nee na fépp fu mu jaar gisagul lu mel noonu kon ñu ngi leen di ñaan yéen kilifa yi fi néew yéen kilifa yi fi nekk ngeen santal ñu ko gërëmal ko te ñaanal ñu ko ah ñun nag dañ leen di wax yéen ñu fi ñëw di suñuy gan ñun amuñu kenn gisuñu kenn ku dul sëñ Matar Jonn mii sëñ Matar Jonn mooy suñu sëriñ tuubaa maay maire bi waaye mooy sama kilifa moo fi sama kilifa ndax moo fi nekkal Serigne Touba lu ma tere dinaa ko ba lu ma sant dinaa ko def te duma ko laaj ndax baax naag baaxul kon boog lépp lu ñu def rek jàppal ni dañ koo def ngir sa ci sa ndigal dañ koo def ngir yoon yoonu Serigne Touba gi ñu bokk yoonu sëriñ Touba na képp ku ci bokk bul xaar ku la naan waw góor bul xaar ku la naan jërëjëf kon daal kaddu gi bëggu ñu mu gudd li ñuy def mooy sant leen bu baax di sant Serigne Mbacke Serigne Mbacke bu baax a baax a baax ak imam li may waxaat rek sëriñ Basri jonn ñaanalal leen ñu ko ñaanal leen ñu ko yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaye nag ren ngeen beralal ñu tamit ab chant ak ñaan ministre de la femme muy ndey Saly Diop jeng yaakaar naa ni ñëw fi tey waaye xat-xat yu xat moo ko teree ñëw waaye kat jàpp na ci bés bu baax a baax a baax te amoon na yéene teew fi kon ñaana ñaanalal leen ñu ko yéen waa Pambal nag man Serigne Cheikh aw ma seen fay li may def daal lu dul jéem a fexe ba lépp loo xam ne seen njëriñ la seen bëgg-bëgg la ma xëy ci gontu ci ndax bu dee fay rek ñi la jur tette la ba tey nga xëy mën a nekk ab maire ñooñu loo leen mën a defal ci àdduna fayoo leen loo leen mën a defal ci àdduna du ab waawu góor kon nag vraiment ah, xamuñu vraiment lu ñuy wax ndax tey suñu xol dafa sedd leen Dione gis nañ leen fi ñu ngi leen di sant bu baax ah, suñu xarit suñu ndiyaay ñoxortin vraiment ñu ngi leen di sant ci ci ñëw gi kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax ngeen baal ñu nag képp koo xam ne tudd ñu la yaakaar naa ni dañoo fattu rek xale yi nag liñ leen di wax rek yéenay magub ëllëg kon jàpp leen ci sëriñ Bas sëriñ Bas ku jàpp ci moom gëm naa ne doo sànku doo réer ndax kat lépp li ngeen doon def ci lu bon tere na leen ko ba bàyyi ngeen ko fii ngeen daan dañaa organiser ay baal ay soirée sëñ Bas bu mu ñëwee dindi na ko ci xale yi kenn sañu ko tu fee organiser kenn sañu tu fee organiser fuural kenn sañu tu fee organiser mbilim kon sëñ Bas yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla jàppale kontaan naa trop sama xol rek a sedd nag moo tax ma waxee noonu waaye jég jéggalu naa ci kàddu gu guddi gi yàlla yàlla sàmm ñëpp yàlla yàlla aar pambaal yokk pambaal doleel pambaal comme ni muy def lépp loo xam ne yéene nañ ko rek yàlla na ko yàlla sottal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyoo bi imaamu dëkk bi le maire ak mboolem kilifa muy gan muy dëkk. ñu ngi leen di nuyu nuyu bu sell nuyu bu tedd bu jóge ci suñuy kilifa yéen bàyyi ko mooy sëñ Modou Dia Amy Seye moom sëriñ Mor ak sëñ Moustapha te ñu nekk fee ca Mewane ci bërëb bi sëriñ Fallou joxoon suñu maam xamaloon ko ne boo ko sa aajo nag faj doo fa doo fa ñëw ñu bàyyi koo fa ci ci cantuk sëriñ Saliou Mbacke gi ci loolu nag di ko lootaabee mooy Cheikh Mbacke jonn mii lañu yàlla boole mu suñu kóllëre fasante ñun di ñu fekk fa ñu nekk lu ñu xewlee mu ànd ko ñun fekk ñu njariñ fekk ñu daaru xuddoos fekk ñu meewaan ba ci suñuy tool yi am yépp dañu fay daje mu sopp ñu lool ñu sopp ko ba yàlla dogal ñu am lente dëkk bi te yàlla gën cee ràññele nag tey tey jonn ñi bisu jumaa ji doon def ay jamono ci ginnaaw ñu féete ñu tuddañu ko ñëwoon teew ci bi dikkee nag gis dëkk bi bëgg ci lool ci taxawaay bi ngir topp gi ñu sopp sëriñ Tuubaa ak topp gi ñu topp yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kon loola moo tax bi ñu ko waxee tey jii ñu ànd ak suñu njaboot ànd ak sëriñ Babacar Dia nga xam ni yaayam bu doon góor mooy toqali général de Mouride moo doon magi Cheikh Sidi Mokhtar moo nekk ci saa ñu ànd ak ak sëriñ Babacar moo ndaw mi àndal ak soxna Khady Fall ñu ànd ñëw ci bis bi. fekk fi kilifa yi nag di ziare ñëpp di eh, feddali kóllëre gi ci ñu fi toog ñëpp ndax ñun ñëpp lu ñu fi mooy jenn jëm mooy sëriñ Saliou te kooku yaakaar naa ni ku wax ashadu laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammad amee nga ko cant ndax la sëriñ Tuubaa yoroon daa ko jox mag ña daf ko laaj suñu borom di ko jox ndaw ñi bari na tey ndaw ñoo xamante ni seeni maam dañu daan tudd sëñ tu sëñ saalihu moo leen yee salaat ba kenn ko ne mën a amaat cërub mag ña kon loolee lañ tee ràññee Abdou Gora Mbaye muy toog suñu wet xam ne ñu noonu moom ñu nga dëkk cëpp ñoo bokk fu nekk waaye muy jàmbaari Serigne Saliou Mbacke di suñu xarit lool ñu daan dayee ci Serigne Saliou nag man ak moom xamante ne te nekk Serigne Saliou ndax man day Serigne Saliou dañoo toogoon mu ni ma jàkk ci kanamu sama waajur ni ma sàllaa yow dama laa bëgg ni ma dama laa bëgg ba ba tuur ay rangooñam loolu nag du lu ndaw ci ñun ñu daan buub ndaw ñi ak njaboot gi di leen jox Serigne di yóbbu ci Serigne Saliou ngir xam ne mooy battub leer bi jëriñ jàmm yi ba mu dem ba bëggantu loolu loolu kon suñ fa dee daje ci moom muy dugg ci néeg may génn wala may génn muy dugg yàlla def ñu dajewaat fii te ku xam Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ci taxawaay yi muy taxaw ndongo yi daal fukki junniy dong ak lu topp mu yor leen cere yi la ci ëpp nekk ci loxoom mu di ko séddalee loolu cër la te yaakaar naa ni kenn pàmbaal kenn mënu leen ci sëñ bi doon wax léegi tudd na ko sëñ Mbacke tudd na loolu liggéeyu sëñ Saliou boobu kon nag ñun suñu xol sedd daal. ci teew gi ñu teew fii xam ni kenn ku ci nekk dafa am lu tax yàlla indi ci kaw suuf muy islaaxal ard defar suuf la ca gën nag mooy jaamu sa borom ndax nee na bindu ma nit a jinne lu dul ñu jaamu ma sëriñ Tuubaa ñu yaakaar nag di ko tuddewoo di ko bëggee moom dañ damaa fekk ñaari wamaa ci alxuraan ma jàpp jenn ji bàyyi jenn ji wa maa xaafu jinna wal insa illaa yaabuduni sëriñ tubaa nee na ba ko yàlla waxee ca laa ne loolu la jàpp yàlla nee na bi nu mën a jinne lu dul ñu jaamam nee na ma sax ci di ko jaamu waaye dafa dem ba jaam yi yàlla yi suñ borom fayee ko sëriñ tubaa ndax moom rek am semaamul wara asri na dalay fi yëg yi ruy bi ndéef yépp ku bëgg ku bañ sag ruu nga ci loxob sëriñ tubaa kon ñun sëriñ tubaa danoo moom bu wér ndax da koo liggéey ca boromam ndax ba muy liggéey sëñ jox na ko amul ku toppoon ci ginnaaw am na amin ba muy ñaan boromam kon coono ba ak nattu ba moom dong ko attanoon moom kese ko attanoon tey jii moo nu may jàmm jii yëguñu nawet bu neex nawet bu naqari nun sëriñ Tuubaa defar na sunuy xol ba noppi lu nu yor sunuy poos moo ko moom tànt bii bu doon suba amaat mën na amaat ndax xéewal gi sëriñ Tuubaa lay jóge kon nag mu xam ni li nga xamante ni moo noo ko yaral suñu bopp sëriñ mo ah, du noonu sëriñ Tuubaa lu fi waay yor nag lu mu rëy rëy rëy ba nga defee ne dara nga ca doo dara lépp sëriñ Tuubaa lu fi yëngu rek ñu di ko dégg di ko teg dara walla muy nur dara loola sëriñ Tuubaa waaw mu ne geneen wamaa ji mooy wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa muy yàlla ne na wërsëgal maa ko yor man maay wërsëgal njëndaaw yi picc yi ma bàyyi ko moom xoola projet Sëriñ Tuba Masaalikul Jinaan a ngi nii bi ñu koy sëñ bi di wax boobu dëkk bi ci crise la nekk waaye àgg na de sëñ Muntaxa ngi taxaw projet trente-sept milliards day àgg de lu koy waral liggéey gi nga xamante ni Sëriñ tubaa jàngal nañ ko ak xéewal yi nga xamante ni moo nu koy xéewale ndax wërsëg ku ko bëgg la am da nga koy jox yàlla lan tànnaa loolu bir la xataa tunfiqoo mimmaa na yàlla ne du ngeen am li ngeen bëgg mukk mukk lu dul dangeen maa jox li ngeen gën a bëgg kon nag te ñun li ñu am Sëñ Tuubaa lañ koy jox sunu alal yeeg sunu jëmm yeeg sunu ruuy lépp Sëñ Tuubaa ko moom kon nag ñun danoo fas yéene nan gën a takku gën a laxasaayi doon ay taalibe te bañ a doon foo murit am murit day dëggu day dëggal xasida yi dañ koy jàng di julli di woor xiini Cheikh Rafaa yi dañ koy bàcce bu baax day faj day def day dindi ku bëgg Sëñ Tuubaa dañ koy boole Cheikh Rafaa waaye ku bëgg Sëñ Tuubaa te bëggoo Cheikh Rafaa sa bëgg dem ndax Sëriñ Tuubaa leer la woon ker la woon bu ne ci biirub lëndëm kenn xamoon kum doon jàng ak jàng rek lañ xamoon ci moom Cheikh Rafaa la dikk ni ëllëg bu jant bi dee xët ba yóor wàcc ba yóori xet kii mooy dimbali jaam ñi fiyee ne mooy Cheikh Ibra Fall kon nañ te ñun suñu biir bër maa ngi maa ngi jéggul sëñ Adama la neexal waaye ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf kon ban na ci ñun ñoo xam dañu tuddee muy bon nag bu nee Cheikh Ibra Fall ñu naan déedéet buñ def buñ bàccee xiini Cheikh Ibra Fall te ñun ñëpp ñu ngi lekk ndogu di laaj addee te grand ak Cheikh Ibra kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax baax xam ne lu waaye gën a bëgg moo joxoon boppam Cheikhul Khadim ba Cheikh Khadim jël ñun fay nu ko Sëñ tubaab benn taalibe la muy moom ñun ñëpp suñuy waajur ak lu ñu baax baax ak fu ñu mën la teg Sare Fall seen sëriñ kon ñun jërëjëf jërëjëf kon loolu nañ koy baxel bëgg Sëriñ Tuubaa dafa war a ci kuma kuma doon ndax moo ko waxal boppam bi xidmatin aw bi hubbi aw kon nag suñ xol yi bu fekkee li ñuy wax ne na ci ñun nanu boole ndax serafal moo ni yoon yi ku bëgg dem da ngay nangu fu sori fas fa lu bari digg te doo wor nangu njaamte su ko kon nag dan xam loolu baax a baax Serigne Saliou mi de moom ku bëggan serafal bàyyi boppam moom Serigne Saliou ba mu sëq ba karaw gi da doon ay njañ suñ ko nee mbàkkee pour ñu yenn la mu ne déedéet dama koy royee saa baay serafal dama koy royee saa baay fal kenn du Serigne Saliou Serigne Saliou mooy Serigne Touba fii ngeen jàpp fi la de ñun ñii ñëpp suñu këri baay suñu këri maam buñ ca rawee bëggan gën bëggan Serigne Saliou ak bëggam ñu bëgg a tax Serigne moo nga day dox ci xambaan yor ab oto bu tudd benn Land Vert sëñ Fall joxoon ko ko muy dox ba yàgg mu ne maar taxaw ba taxaw mu ne ko Serigne Touba moo may xeeñ bu Serigne Touba doon dund ne ngetam moo may xeeñ ndekete ab voiture ngi ñëw ab buy dox sëñ bi laaj ko ni ko dama laajama ñee mu dem laaj ko noo tudd chauffeur bi ni ko Ibra Guèye laa tudd mu tudde ca genn wet ga ka perkaal bu weex kaalawu ca mun ko noo tudd mun ko saalihu laa tudd néew ko sëriñ ko bàkk rek ko ni saalihu mu dikk ci sëñ Mor ni ko nee na saalihu mun ko dama laajama saalihu adum sant mun ko nee na mbàkke mu ba ko nee mbàkke bu laa dem ni ko yow noo tudd mun ko maay saalihu mbàkke doomu Cheikh Khadim keroog sëñ moo gi dafa daanub jëli ci kanamam te boobu loolu yàgg na ni ko jamonoo ngi ñëw booba sëñ saay du mag ci saayir jamonoo ngi ñëw di nga uuf njabootu sëriñ tubaa gi ni ginaaru njaboot uufay doomam man nag dama ko fekkee man sëñ Mor ja waaye am naa soxla ca kër ga amul amum ñaari weer yàlla xamal na ma ne doom jo góor la tudde naa la ko mooy sëñ Saliou Dia sëñ Saliou daal di muuñ daal di ko ni dina dina fi yàgg dina bari xam-xam ñu am na ñu waxante foofee sëñ bi daal di ñibbi ci saayir ñu dajewaat mbuur ca bisu tudd ba sëñ Saliou ñëw mbuur sëñ Mor ñëw fa ndeke si soxla sa am doom jar sëriñ Saliou Mbacke ni ko nañ ko tudd tàllal kaalaam ga xarmaa nga ca njar sëñ bi rendi ko mbuur kenn du sëriñ Saliou nan ko bàyyi xel bu baax man nekk ko ko gën gisuma ko ëllëg yomal xeex bi laa ko gis amoon yërmande jaam ñi ba foo fekk mu tuur xéewal dimbali ndaw ñi yërëm ñu taxawuñu ba tey kenn ku ne man dara grâce Serigne Saliou Mbacké nañ ci feer te muy dëgg cant gii na gën a dox Basiiru jërëjëf da nga gën a taxaw xam ni kuy liggéey yàlla faw mu metti waaye taxaw rek ngir jëmi Serigne Saliou Serigne Saliou lay dimbali boppam sëñ Siiw daa Serigne Saliou ñimewul bor daam pay te kenn ku ne xam na ko jëf te dala fay nanu góorgóorlu taxawaat bu baax a baax xam ne lii cant gii ba àjjana rek kenn du leen freiné seen loxo yi dëkk leen ko yàlla te yàlla tax ab loxo koo ko tàllal ku dul yàlla mën la caa tegal la doy yàlla rek leen man tegal la doy moom sa léppay doy ñu ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa